asalaamaaleykum mbokk yi ñu teew lu ci leeral TV ak leeral point net tey ji nag ñu ngi fi nga xamante ne moom mooy Ndiéné lagan ci tool yi nga xamante ne Serigne Cheikh Saliou Mbacké di taaw bu góor ci Serigne Saliou Mbacké moo ko daal dee doonee ci waajuram bu góor yooyu tool nag taalibe yi di bàyyeeko fu nekk ci Sénégal di ñëw di fekke si li nga xamante ne moom mooy liggéey bi tey ji équipe bu leeral TV ak leeral point net daal di déplacé wu ñëw xool ba ba liggéey naka lay demee da ngeen may topp ci kanam tuuti ñu ànd ak yéen waxtaan ak ñi nga xamante xamante ne ñoom ñooy taalibe yi dékk leen suñu micro fi eh, lépp loo xamante ne ah, taataana nañ ko fi ci xibaar daañu leen ko fas yéene dégtal eh, ci biir Leral TV ak Leral point net noonu la ñuy def ànd ak a dugg ci biir tool yi sant Serigne Touba sant Serigne Cheikh Saliou Mbacké ñaan suñu borom temps ci barke Serigne Saliou Mbacké jënaale Serigne Cheikh Saliou mu yokk fi yokk ba ndugal kattan comme ni nga ko waxee Ngobou Lagane moom li li tubaab dinaa les gens viennent de partout nit ñi fu la ñuy jógee ak xeet bu ne moo fi ñëw amut séeréer amut joola amut olof amut ñëpp a ñëw boo xoolee sax am ñoo xamante ne ñëw nañ depuis deux jours am ñoo xamante ne ëpp bi dem ci guddi la ñu ñëw fanaan à l'air libre xam nga képp koo xamante ne danga ngaa bàyyi sa kër mu doon étage wala mu doon néegu ñax mu nga ñëw fii di fanaan à l'air libre su lee ci ci ci ñax yi xam nga kooku Serigne Touba jaral na la liggéey bi jaral na la léegi bi nag njëriñ kese moo tax ñëw ñu ñëw loo tax vraiment sant Serigne Touba yëg boobu daal sant Serigne Touba liggéey bi si ñaata fan la ko taalibe yi di liggéey. bon xam ga loolu aussi xayma bi dina jafe tàmbali bi mën ngaa nam ne tel jour tey lañ ko tàmbali samedi bi am na ñoo xamante ne dem sax lañ tàmbali dem ci ngoon lañ tàmbali góob mais quant à nag kañ lay jeex loolu moom ngi dépendre ci tool yi ak mbooloo mi ak ak ak aussi niñ ko niñ ko liggéeyee. bon généralement daanaa dem daan man am na fekk yu bëri yoo xamante depuis des années maa ngi ñëw mais yenn saa yi mu ba lundi lundi matin ci lay jeex mais lu lu ci mën a moom balaa kenn di fi jógee sëñ bi sëñ Cheikh ñi ma xamante ne ñoom la dénk tool yi dañuy bari seen oto yeeg wër tool yi yëpp buñ gisatu dara ñu xam ne liggéey bi jeex na ci lañ xam ne ci lañ xam ne liggéey bi jeex na ñu doog a daje fii ci jaag bi nag sëriñ bi ki mu yebal ñaanal mbooloo mi yiwi leen ku ne sant sëriñ Touba ñu ina la ñu ina la maanaa dugub bi euh, bu paree nuñ koy defee ba transformé ko fu mu jëm nii. dugub bi moom xam nga xam nga xam borom dugub bi am na loo xamante ne <laughs> borom dugub bi moo koy xam waaye luñ ci am na peut-être xanaa mën nañ cee xam wax liñ ci dégg parce que dugub bi buñ ko jaagee ni ba pare ndongo daa ba dem ndongo daara am na période bu ci jot bu jote ñoom ñoo ñëw ak seen i machine boj ko sarcel ko siñ bi ci ci ci magasin yi euh, xam li ma mën a joxe exemple ci dugub bi ci fi njëriñ ci fi mu jëm ñun ñi nga xamante ne dañuy ñëw fii ci tool yi dugub bi la ñu reere cere cere dugub euh, dugubu saañu daara yi aussi dañ ciy dañ ciy am sëriñ bi aussi man dégg naa ci nit ñi ñu ne day sarse ay camion di di maye dugub di saraxe dugub te kooku xam nañ da koo donte ci Serigne Saliou Mbacké ndax Serigne Saliou à son vivant daana def jël ay camion dugub camion ceeb yóbbu ko ci mboolem ba ci mbuur sax da daan joxe da daan joxe foofu waxtuma Touba Serigne Cheikh aussi mu ngi ci tànk yooyu foofu daal mën naa wax ne dugub bi fa la ci li ma ci xam ak ci li ma ci dégg des nag Serigne bi moo ko xam. ñoo ngi lay nuyu soxna si ñoo ngi lay fay bu baax a baax. ñu gis leen ngeen nekk ci oto yi di yëpp ay marchandises di indi di ba si li nga xamante ne moom mooy dal bi. wax nga dëgg ginnaaw bi ñu sant yàlla ñu ngi nuyu suñu sëriñ bu baax a baax di ko sant sëriñ Youssoufa Diène mu yàgg fi ànd wér lool ñuy bagante nag di dem ci euh, dal ba di dem ci magasin bi di indi xéwal di ko jox euh, murit yi ñu fas yéene barkeelu lépp sëñ bi rek ñuy sant yàlla bu baax a baax di gërëm sëñ bu baax a baax di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax liggéeyu sëriñ Tuubaa bi ku la ci woo yow la bëgg a dimbali waaw yéen ndaw ñi fu ngeen jógee ba ñëw fi ñun Touba lañ jógee ñi nga bàyyi ko Ndakaaru ñi nga bàyyi ko Ndande ñi nga bàyyi ko Mbar ñi nga bàyyi ko Daara ji Lamsaar lépp ngir liggéeyal sëriñ bi rek ngir sàkku mu sëñ bi moomu muy suñ bopp muy taw baa mu naaj muy guddi baa ba cëg saa suñu sëñ bi soxlaa rek ñu jóg liggéeyal ko waaw ñun moom nu suñ bopp daal saa su sëñ bi wootee rek ñu takk laxasaay gi fas ko yéene liggéeyal ba keroog ñuy euh, sàngoo suuf waaw loolu rek waaw jërëjëf ñu gis ne nag yéen nekk fii ci li nga xamante ne moom mooy liggéeyu café gi euh, liggéey bi nan la demee. waaw liggéey bi dina ñëw ngir euh, tànga kafe gi jox gaa yi baax yi ñëw si tool yi waaw. café gi suba ba ngoon da ngeen di xëy di xeent. waaw day xëy suba di tàngal suba mbana bëccëg mbana ngoon mbana ngi jox ko jaamu yàlla rek ñi liggéey sëñ bi naan rek sant sëñ Tuubaa waaw. yéen a ngi fi ñu ngi ko ñu ngi ba kore liggéey bi jeex rek ñoo fi njëkk te ñoo fi mujj ndax sëñ bi rek moo tax ñuy jóg. ngir eh, di ko liggéeyal suba ba ngoon sëñ bi moom mu suñu bopp ba ko liggéey bi jeex. fii ba liggéey bi jeex da ngeen xëy suba ba ngoon di baxal kafe di ko jox taalibe maa la ko wax day xëy suba suba ba ngoon tàng kafe gi di jox taalibe sëriñ bi rek ñuy naan ba ko liggéey bi jeex bu liggéey bi jeexee ñu ñaanalante waaw. ñu ngi lay nuyu sëñ waaw maa ngi fa fay soxna si. tur bi ak sant bi. Eh, Mourtala Mbodj la. Ah, Mourtala fan nga bàyyeekoo nii. ah maa ngi jógee Mbodjeen région de Thiès waaw Mbodjeen laa jógee pour ñëw ci liggéey bi waaw waaw. nga nekk taalibe. waaw man taalibe sëñ Cheikh Mbacke Saliou la. Eh, liggéey bi yomb na. liggéey wax dëgg yàlla yombul moom waaye nag maanaam sëñ bi moom mbiram yombul jaayante la rek waaw jaayante rek ndax wax dëgg yàlla moom fan jógee sori na lool waaye Serigne Touba moo ko jar waaw Serigne Touba moom koy liggéey doo yëg coono doo doo doo doo xalaat dara dëgg yàlla ku ne xam ne ni jógee Thiès ba fii ñëw nekk ci àll bi ak situation yi fi nekk yëpp di ko jaayante ngir Serigne Touba rek Cheikh Saliou Mbacke Diop. nga bàyyee ko fan. ma bàyyee ko Dakar nekkoon ci daara ji waaw léegi ñëw ci liggéey bi. ci daara ji nga nekkoon bi nga nekkee tout tànk mën nga see dellu siwaat waaw waaw ci daara ji laa nekkoon def naa fi 10 ans nekk naa tamit ci daara yu bari fii nekkoon naa Boussan nekkoon naa Njàppandal nekkoon naa Janot Salam ak Ngaabu yëpp waaw nekk ci liggéey bi daal. nga jàngee fi alxuraan. waaw fi laa jàngee alxuraan waaw. Euh, tey ji nga ñëw jàkk nga si nga ñëw jàpp si si liggéey bi euh, nekkoon ndaw màgg dellusiwaat fi euh, ban sentiment waaw yii sentiment bi kay moom xanaa <laughs> dafa amul fu mu yem mënuñ ko décortiquer parce que waaw sëñ bi daanaka lépp népp nuñ mel rek moo ñu ko def waaw bi ñu nekkee bi ñu nekkee tuutànk mën naa wax ni balaa ñu judd sax la suñu wayjur yi nekk ci moom mu leen di tarbiya ba ñëw ñun tamit nekk ci yoon wi ba léegi daal te ci lañ fas yéenee nekk ba abadan waaw moom moom daanaka lépp loo gi si ñun rek muy yar ki teggeen ak nu mu mënti demee rek moom moo ko def ñun waaw moo tax dañ naan sant ko daal mënul weesu nekk ci ay ndigalam te bàyyi tereem waaw. Eh, ñu ngi lay maa ngi leen di fay. Eh, nga bàyyi ko fan yi maa ngi Sow Dakar. jóge Dakar ñëw jàpp ci si liggéey bi en tant que talibé. waaw en tant que talibé en tant que waaw parce que man moom chrétien laa woon 2014 laa tuub. tàbbi ci yoon bi tàbbi ci yoonu sëñ Touba murid gi sëñ Cheikh Saliou ki ñuy góobal tey moom moom ma tuubal mooy sama sëriñ waaw ci moom laa jébul tamit mooy sama yaakaar tey ak ëllëg waaw te ñu bi ma ñëwee tamit ma gis ci moom sëriñ bu mat sëkk sëriñ bu mat sëriñ teg ñu teg yoon di ñuy dimbale parce que lii nii ab ndimbal la waaw su su la sëñ Touba dimbalee moom ba nga ba nga tàbbi ci liggéeyam rek loolu moom ab ndimbal bu rëy la sëñ Saliou sëñ Saliou ci boppam daanoon na wax ci liggéey bi ne man parce que sëñ Saliou doon wax na benn jour que moom du yërëm kenn ci liggéeyu sëñ Touba mu ne moom moom moom gënal yu nekk ci biir liggéey bi xam na ko moo tax du yërëm kenn te sëñ Saliou dafa waxoon benn jour que yàlla suñu borom ëppoo ko yërmande ci jaam yi waaw te yërëm liggéeyu sëñ Touba rek la amul woon yërmande parce que nee na dafa am dafa xam xamoon gënal yu ci nekk waaw kon ñun dañoo war a sant bu baax te xam ne lii suñu ndimbal la waaw. ca dugg si mouridisme yomboon na. waaw yom yom yomboon na yomboon na yomboon na man moom sama sama côté jafewul waaw ndaxte commencement bi mu génte woon mu ma dikke woon ay gént waaw ay gént ma commencé gént après bu ma demee ba ci biir xasida yi xasida yi su ma demoon ba romb nit yi di jàng xasida wala wala wala wala ma zappe télé euh, jàpp xasida yi mu commencé di tàbbi sama biir xol ci laa xam ne nag man murid laa war a doon. lan nga doon gént. waaw li ma doon gént dama doon gént parfois sëriñ yi des fois ma gént di nelaw ba jékki-jékki rek mu am lu bës sama bopp yi wax baatu laay laay ilalaa ma yeewu waaw te loolu vers trois trois heures di matin la ma doon dalee ba bësët waaw. si dugg ci diine l'islam. waaw ma dugg ci diine l'islam waaw. ba ji amoo ci benn regret. déedéet amoo ci benn regret avancement rek laa ci gis di sant bu baax sax waaw di sant ku tedd lan ngay wax seen mbokki taalibe yi si jàpp si ah, waaw lii de. ku ko def ku ko def si moom tawfeex la ci yow rek ab ndimbal la ci yow waaw ndaxte si na lu mu waroon liggéey ba dem <laughs> yoonam waaw kon ñun ñun war a góorgóorlu rek waaw te xam ne la daal waaw. jërëjëf waaw ñu dellu ziar bi euh, fan nga bàyyeekoo nii. Mbodiène Touba Mbodiène. ñëw jàpp si liggéey bi def yëfu taalibe. waaw waaw def ju koy bayfaar rek suñu sëriñ ñu waree ñu daal di ñëw wuyu ko waaw waaw mu nekk lu seet suñu xol lool sax nag ndax ñun dañoo xam ku ñu àndal mooy kan muy Serigne Cheikh Mbacke mu Serigne Saliou danoo yàgg ak moom nag nekk ak moom daanaka ba ñuy nekk du tànk ba léegi ñoo moom fépp fu mu woote fu nekk daanaka duñu fa jiituwul daanaka kenn duñu fa jiitu kon ñun xam nañ ku baax kii kan mooy seen Cheikh daa nekk jëm joo xam ne nag dañ koo xaw a umpale lool Serigne Cheikh Mbacke mu Serigne Saliou wala wala yangacim dafay taxawaay taxawaayu Serigne Touba bu wér a wér a wér ci yoon yi parce que dafa nekk nit koo xam ne boolewut ak lenn na koy wax day jëf te boolewut na koy wax te lépp lu mu jëf lu ne jëfi Sëñ Tuubaa rek jëfi Sëñ Tuubaa donc bay tabaxi jàkka kese tabaxi jumaa kese la fi nekkee maam kooku maam kuy ànd moom ku ne war nga am loo xam ne moom ngay si moom mi ak dal ak murit ak taalibe surtout loolu ak dal ak dal da koo am ba mu wér ba mu wér ba mu doy sëkk yi tarbiya goo xam ne maam saa boo si rek sa xel day dem si mag ña maam ñam nekkoon nan nekkoon ak sëñ bi sa xel day nekkaat si ñooñu kon kooku maam moom ko ne daal am nga melokaan woo war a yor daal. ñu gis ne euh, murid yi euh, benn kàddu lañ leen mbàkkee mooy murid boo waxee rek ñu ne la jëfee ndigal. waaw waaw murid moom ndigal ba ne ko ba ne ni murid ndigal kon moom murid ndigal waaw ndigal moom fu mu jógee rek daanaka ñu moom ñoo nga ca moom waaw jërëjëf jërëjëf soxna